leen may seen revue de presse. FBN banque bi def ay clientam yitteem bu njëkk mu leen di may seen revue de presse. yéen a kaay yàq mantu lay ci bundoo yi. candidat président Macky Sall day candidat lay doon ci 2024 24 heures yéen kaay di ma xamal ne benn nag ndaw bokk ci APR bu Macky Sall moomee jege it première dame Marième Faye Sall moo xam ne lu ni mel ci xëtug yéen kaay bi ñu ne ci fàng Macky Sall mu yor balem di bale teg ci casquette boo xam ne ñu ngi ca bind 24 geneenu ndaw ca wetam Macky Sall sol casquette gu mel noonu ñu bind ca 24 mu mel ne dañoo jox rendez-vous gars yi 2024 Mame Moussa Fofana dëkk ca Géejawaay ne man la wax ji du deñ Macky Sall mi ngi liggéey ngir am beneen mandat cay liggéey ma ngi cay dox ma ngi cay wax te loolee la fas yéene ci même réew Moustapha Diakhaté ci tribune yéene kaay ne Macky Sall balaa muy lijjanti beneen mandat ci réew mi na lijjanti mandaam ci biir APR mandat am nag lu jege juróom benn at ngi nii mu jeex ci boppu APR googee te kenn renouvelé lew ko te la mu war a gën a liggéey moom président jamono ji mooy def kenn talaay kattanam ba démocratie dellusiwaat si réewum Sénégal sénégalais bu ci nekk nag gis sa bopp ci réew mi ay waxul dafee ak yooyu moom jarul sax di wax Moustapha Diakhaté ne ma ne la ma mooy Macky Sall juróom ñaari xelam mayu ko benn yoon mu diil ak Idrissa Seck di ko defub dauphin déedéet du ko def mukk mbaadu Amadou Ba mii moom moo di successeur bu Macky Sall surtout anema journaliste yi ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllu politique day ku ci nekk sax xalaat Ibrahima Bakhoum ne dëgg la Amadou Ba liggéey na ci zone yu am solo lu ci mel ni Parcelles Assainies waaye est Ndakaaru ci Parcelles Assainies la yam Sénégal ci Ndakaaru la yam Ibrahima ne déedéet Atab Badji politologue moom it ne am na bi nag waaye nag du ministère des affaires étrangères Amadou Ba du moom rek moo nekk responsable ci APR yeneen responsable it ñi ngi bëgg doon candidat ni moom waxtu waaw critique yéen a kaay ne ma Macky Sall daal dekkilaat na Khoudia Mbaye ak Madjig Ndiaye ku ci nekk ci ñoom ñaar def na la PCA ay ministre am la ñu wóor mu sërxal leen ci ay PCA tribune yéen a ma waxtu waaw moom ñoo lànk ña ngay doxal rek seen xeex goo gee nga xam ne ñu ngi koy xeex ci lu jëmale kanam askanu réewum Sénégal boole nañ ci Abdoulaye Wade dem nañ seeti maam Wade ni ki démb maam Wade na xamal na leen ni seen xeex googee gis na ca boppam waxtu woowu dialogue national ba ña ngay rayante siisu am na ci seenu biir commission politique ñooy xeex ak commission de pilotage l'enquête yéen a kaay ne ma Famara Ibrahima Sagna ak général Niang ñii nag ñoo tay la dialogue national bi commission politique bi moom nee ñu duñu wax ak kenn ku dul président de la république Macky Sall Déthié Faye xam leen ni kon ñoom duñu nangu benn yoon seenu déggoo googee ñu koy waxtaanee feneen Birahim Seck ne la ma bëgg a le mooy commission bi bii légal taxawaayam ci boppam dafa légalul yéen a kaay dama xamal ni attaque contre attaque kay am diggante Famara Ibrahima Sagna ak commission politique bi yéenekaay bi di laas di ma xamal ne dialogue politique bi daal tàbbi na géej Walf Quotidien ne boo moytuwul kay xeexoo gu metti moo nar a am ci dialogue politique bi Sud Quotidien jox kàddu Momar Jong muy nag xamlewaat fan la dialogue politique bi war a taxaw jamono jii Momar Jong ci yéenekaay la leen ëppaloon solo moom moo di ñu xaw a déggoo ñoom opposition pouvoir te nañuy dàqe élection locale yi te waxtu woowu moom waa Grand Place di ma xamal ni scandale bu 4 am na nag ci wàllu kit bu jalis bi Mansour Faye ak Abdoulaye Diouf Sarr ñoom lañ ca joxoñ baaraam ak tuuma xamal ni gendarmerie nationale day def na liggéey bu am solo ci 2019 bi ngir xeex ñàkku kaaraange gi ñuy dund ci réewum Sénégal ñàkku kaaraange googee laas di ma xamal ni ab xale bu jigéen bu am juróom-ñaari at daal dinay faatu ca golf sport ma boo bëggee dégg dëgg tàggat yaram Sadio Mané day waa Liverpool dañ koo lankal mu ñëw feetu si ak waa réewam ballon door ba ñenn ñi naan problème technique la ñenn ñi naan blessure la tribune sport ma Liverpool daal en tout cas génnewuñ leen ci ndax ñi ngi xam ne nag ñoo lank ne Sadio Mané du ñëw fii Sénégal yendu leen ak jàpp master office déco bi ngeen ànd